ginnaaw bi ñu leen sante gërëm leen ci li nga xam ne mooy Aladji Malick TV abonnement ya nga xam ne yéen a ngi koy woy di ko doxal loolee di mbégte ci ñun bu baax a baax te ñu leen di ñaan ngeen continuer yokk seen doole di def seeni i abonnement tey seetaan vidéo yi ba muy jeex ndax am na solo lool gone Almeria yi tey jii bay tamaate leen gënoon man ka football moo tax bi leen goney Real Madrid di jàppee daanaka tuuti xaw nanoo tiital goney ànd ak Ancelotti waaye nag loole du dara ci ñi nga xam ne ñooy champion d'Europe nga xam ne danoo raafal lépp li nga xam ni possible nattu leen mën a jël ñu daal di koy jël loolee Real Madrid football nan juróom benn fukki minute ak benn ka nga xam ni mooy Lucas Vázquez daal di égaliser waaye juróom ñaar fukki minute ak juróom fekk Alaba dugg na ci terrain bi yàggu ci dara daal di rajaxe kër gi dugalaat beneen bii boo xam ne mooy tax Real Madrid daal di euh, gagné équipe bi nga xam ne mooy Almeria ci match boo xam ni euh, deuxième mi-temps bi la ñu ko suyee loolee euh, bokk ci li nga xam ne mooy force bu Real Madrid seen i match ak seen victoire lépp danu koy jàpp ci li nga xam ni mooy deuxième mi-temps bi Real Madrid di équipe boo xam ne suudee gunu waaye fi mu toll nii ci commencement gi nii ña ngay roof ndànk-ndànk di jëm Euh, ci li nga xam ne mooy déggoo goo xam ne moom la ñuy wër ba bu championnat bi di xaaj Real Madrid googee du neex a attan Real googee daanaka moccee la andi seen digganteeg euh, ñi nga xam ne ñooy Almeria loolu am solo bu baax a baax yeneen information yaatu yi euh, ci kanam tuuti résultat yëpp dinañ ci dikk.